yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi mbokk jullit yi mbokk taalibé yi asalaamualeykum wa rahmatullah ci ndigalu sëriñ Touba sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké xalif général des mourides yal na fi yàgg lool te ànd ak wér sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké Souhaïbou Rasul ak mboolem njabootuk sëriñ Souhaïbou Mbacké ñoo am mbégte di fàttali di yëgle ak di woote màggaluk sëriñ Souhaïbou Mbacké gi nuy amal at mu nekk ci juróomeelu fanu koor gi ci Touba ren muy dëppook samedi fukki fan ak juróom benn ci weeru mars 2024 wala dimanche fukki fan ak juróom ñaar ci weeru mars 2024 muy bésu fàttaliku ak màggal feeñ nañu jamono Serigne Souhaïbou Mbacké Khadimou Rassoul di bésub sant borom bi subhaanahu wa taala sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba Khadimou Rassoul sant Serigne Souhaïbou Mbacké ñuy ñaan mbokk jullit yi daara alxuraan yi kuréelu xasida yi daayira yi jàkke ak juma yi lu nu mën ci jàng a karim jàng xasida salaatu ala nabi ak istixfaar ñu sellal ko def ko addiya Serigne Souhaïbou Mbacké Khadimou Rassoul programme bi bu nu xëyee ba tisbaar njàngum alxuraan ak xasida tisbaar ba tàkkusaan ay waxtaan ci dund jaar-jaar liggéey ak njàngaleem sëriñ bi bu ñu sëlmalee tàkkusaan njàngum fulku ak njàngum xasida ci penc mi bu ñu ndogoo julli timis sëriñ cheikh ahmadou mbàkke xalifa sëriñ Souhaïbou mbàkke xaadima sol ñaanal mbooloo mi ñaanal réew mi ñu yewiku ba déwénati incha allah